ma bëgg nag aussi jagleel ay kàddu ñi nga xam ne moom lañ tuddee force de sécurité police gendarmerie armée ñu xam ne foofa suñu ay doom lañu ñoom ñoo leen jur suñu ay rakk lañu suñu ay borom gër lañu ñenn ñi suñu ay sët lañu ñoom seen mission mooy sàmm kaaraange Sénégal yi ma di leen woo ci loolu ñoom sénégalais yi lañu fi nekkal nekk lu ñu fi président Macky Sall en personne déedéet fexe ba sécurité boobu mu am kuy exercer sa droit te yoon may la ko ñu protéger la bañ a mukk ci àddina naan ñii suñu ay noon lañu ñu naan la tiréel ngay tiré mukk ci àddina mukk loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon naa toog fii wax leen ko ñoom ñëpp ndax ñoom nag ñoo yor suñu kaaraange bokk ci ñun jóge wuñu feneen suñu ay doom lañu suñu ay rakk lañu suñu ay jarbaat ku ñu ci def loolu dëppoowul ak yoon waroo ko def lii may wax nag yi dama koy jagleel état yépp ak justice mu ñu xam ne fii état de droit la du état pour le président Macky état de droit la loolu moo ko may tey mu nekk président de la république kon lépp képp koo xam ne kii dellu siwaat ci force de sécurité justice ak état ba en au complet ñu nekk au service des sénégalais bañ a nekk au service exclusif du président Macky Sall kooku aussi di message boo xam ne bëgg naa ko woon a joxe li ci des mooy li ma wax ñu toog ñu ñépp waxtaan démocrate politiciens yi nga xam ne gëm nañu justice gëm nañu équité du ñu nangu rek par force damay néewal doole diw parce que àndul ak man parce que nag mën ngaa bañ a ma ko waxee jubóog nit waaye ba tey nga tawal élégance man président jigéenam la moom waaye tey ma defanteeg yow walaa tey ma nangam tey ma bisimilah bisimilah amuñu dara luñ ci ragal dara fii nag fii nag jigéen yar na fi yàgg na fee taxaw moom xam na loolu yàgg na ca maam ya ca maam ya ndax dëkk bañ la nag aussi ci góor ci jigéen ci mag ba ci personne âgée yi defe président dafa xaw a fàtte Sénégal ndax nag ni ma ko waxee benn benn bakkan bi benn yoon lañ koy am da ngay dal di doon gor sàmm ko nag ba dee bu ko laajee ak taxaw di ci woon ak bépp démocrate loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko yëkkati terminer ko ci loolu